الرحمن الرحيم إن الحمد لله نعبده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سراج منير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اختفى آثارهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإسلام والإرادة اتقوا الله وأطيعوه fala taxurannakum alxayaatu dunia wala yaxurannakum billahi alxaruur istaidu li haadimi lazaat bi tawbatin nasuuxin bilxuruuji min kulli masmuumin saraan walaw mamduuxan tabaan ila kulli mamduuxin saraan walaw masmuuman tabaan waalamu anna almawta yaati baxtatan wala yarudduhu jaaun wala xuwa aynama takunu yudriku almawtu walaw kuntum fi buruuji musayyada fal nujaddidi tawbata bil istixfaar wa raddi alxuquuqi li anna ma baynana wa bayna allahi subhaanahu min alzunub fa yaxfiruhu bi tawba wa amma ma baynana wa bayna alxalqi min alxuquq fala xiilata lana illa alxadaa aw alistihlaal aw tasawwur bi fixli alxayraati istihdaadan li raddiha yowma aljasa fal nuajjil fakka raqabatina bi zunubi min alxuquq qabla an yatiya fal nuajjil fakka raqabatina min alzunubi walxuquq qabla an yatiya alyaqin wa yanqatia alamal wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allahi huwa xayran wa azama ajra wastaxfiru allaha inna allaha gafuurun rahim أيها الإخوة إن الاستعداد للموت لا يعني إهانة أو إهمالا لحقوق وواجبات الحياة الدنيا فالمسلم يجب أن يكون متواصلا في تأديته لحقوق وواجبات الحياة الدنيا وفي استعداده للحياة الآخرة ربنا اغفر لنا سنمنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا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 ba li nga xam ne moom nga yéene defal lislaam nga def ko ci defin wu kawe sa jot loolu ñu ngi ko ñu ngi koy ñu ngi koy di ñaan itam suñu borom mi nga xam ne mooy boroomu man boroomu kattan mu defal nu xéewal ci réew mi te defal nu fi jàmm te gën noo yokkal suñu góolu ba ñu gën a mën a taxaw ci li nga xam ne moom la ñu sant ginnaaw loolu nag tey jii ñu ñëw ngir wax li nga xam ne moom la suñu borom def ci ñun muy suñu borom dañoo teel a xamal ne bi ma leen di bind dey binduma leen ngir dama am kàttan rek di mën a bind di bind waaye dafa waaye binduma leen yéen itam ngir bàyyi leen rek ngeen nekk fi binduma leen ngir wone sama kàttan kese yem ca binduma leen yéen itam ngir bàyyi leen fi rek ngeen nekk fi waaye dañoo bind ngir wone kàttanam waaye itam ngir am loo xam ne moom la bëgg ci ñun ñu def ko mooy wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudoon ba mu nu bindee dafa am loo ne moom la bëgg ci ñun ñu nangul ko ne ko ay ay jaamam la ñu di ko di dox ci li nga xam ne moom la bëgg di moytu li nga xam ne moom la tere waaye li itam ñun bi ñu bindee itam daa am loo xam ne moom la ñu bindee mooy ñu nangul ko loolu te di ko def biñ ko bi ko bi loolu amee itam nag suñ borom xamal nañu ne adduna di adduna sii bi ma leen fi andee andiwuma leen rek te joxuma leen li nga xam ne moo leen di dimbalee ci li nga xam ne moom laa leen sant di jox nañu kàttan jox nu am xel yëmut ci waaye mu won mu andil nu koo xam ne moo nuy won ni li mu bëgg nan lañ koy defe muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu des na kon ñu ndax loolu nga xam ne moom la ñuy loo ak loolu nga xam ne moom la bëgg ci ñun ndax dafa doon loo xam ne luy continuer wala dafa am loo dafa am foo xam ne fa lay yem mu teel noo xamal ne am na foo xam ne nag li ma leen di def loo fa yem moo di ne yéen ñëpp da ngeen xam ne dana am bis boo xam da ngeen fi jóge delluwaat dellusiwaat ci man bu ngeen dellusiwaat ci man nag ma xool li nga xam ne moom ngeen nekkee woon ci àdduna ndax nekkin wu rafet la wala ndax yéen a ngi ci ci yoon wi nga xam ne moom laa bëggoon ngeen nekk ci moo tax mooy bi mu nu joxee kàttan jox nu man won yoon wi nga xam ne moom lañ koy jaamoo loolu li li ku la defal ku la deful lu mel noonu nag sañ naa xool ba xam ndax li nga lim la sant yaa ngi ko ci delloo njukkal wala delloo ko ci njukkal lim la lim bëgg ci yow ndax yaa ngi koy delloo njukkal wala delloo ci njukkal loola nag moo tax muy wax ne xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala mooy jox naa leen kàttan jox leenu man won leen yoon wa léegi nag kon li des mooy yéen ci yéen lay xool ba xam ndax bi ma leen defalee lu mel nii da ngeen ma njukkal wala da ngeen delloo dangeen ngeen da ma sant ci li lu toll nii nga xam ne moom la leen defal moo loola nag ci lay xoole ba xam kenn ku ne sa cant ci moom ak sa ak sa njukkal ci moom nan la gën a rafete bi mu la joxee kàttan jox la man jox la jox la loo la yoon wa kon li des mooy delloo ko njukkal delloo njukkal googu nag moom la suñu borom di xool ci doomu aadama yi bi la waxee loolu nag itam mu xamal la ne day adduna sii nga xam ne moom nga nekk day bul ko am nga am nga loo xam ne war na la fi loola nag bul ko dee ko bàyyi xel am na loo xam ne itam moom bu lii jeexee nga xam ne moom laa lay def loo bu jeexee ba ngaa dem ci kër ga nga xam ne fa lañ jëm am na loo xam ne moom itam kër googa moom lay sàkku loolee itam na nga ko bàyyi xel mooy wabtaqi fii ma ataaka allahu daaral axirata wala tansa nasibaka mina dunya xamal ne day adduna sii lii fii gën a far mooy li nga xam ne moom la la yàlla jox ci kàttan ak ak ay moyens yoo xam ne mën nga koo mën nga koo jëfandikoo nga di ko jëfandikoo ci waajale ko kër ga nga xam ne moom lañ jëm ëllëg te mu doon kër goo xam ne du jeex waaye nag kër gi nga xam ne moom nga nekk itam tam doon kër guy jeex itam bu ko bàyyi dee ko bàyyi xel ndax daa am lu la fi war te loolu li fi war itam faaw nag na koy def waaye nag boo koy def itam na nga na na nga ci ànd ak li ma la nga di ko bàyyi xel mooy wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka la yàlla defalee ay kàttan jox la man jox la won law yoon loolu itam war nga bu la joxe kàttan googee ak man-man boobee ak am am boobee nga am nga di ci bàyyi xel li la yàlla mi la ko defal te te du say pexe te du sa du sa du sa du say du sa lenn lu dul moom rek moo ko moo ko moom moo ko moo ko moo ko defal moo la ko defal kon nga bàyyi xel loole loola nag tax na ñu xam ne kon nekk gii nga xam ne moom lañ nekk ci àdduna ak li nga xam ne moom lañu suñ borom di def loo suñ borom da dafa am foo xam ne fi la ko yemale foofee mu ko yemale nag daa bëgg ñu di ko bàyyi xel ndax xam ne doonut liggéey boo xam ne dala koy defloo te amul fu mu yem waaye liggéey bi mu lay defloo dafa am fu mu ko yemale foofee bu ko yemale nag nga xam ne mooy yoon mooy bunt bi nga xam ne ci ngay jaar ngir jàll ci la nga xam ne moom ngay war a dajale ci li nga doon def fii ci àdduna loola da ko lool loolu nga xam moom nga doon def ci àdduna kon kon yoon woowee nga xam ne moom ngay jaar bu mat a bàyyi xel la ndax xam ne faw da nga jaar amul kenn koo xam ne da nga ci mën a da nga mën a rëcc jaar feneen fu dul foofa kon ñu bàyyi xel yoon woowu nañ la ñuy bàyyee xel yoon woowu nag moo di ne ñun àdduna si yi nga xam ne moom lañu nekk ñaar lañ fi nekkal mooy suñ borom mi nga xam ne moom lañ moonu bind ak doomu aadama yi nga xam ne ñoom lañ bokkal nekk ci kaw suuf suñ borom mi nga xam ne moonu bind li mu bëgg ci ñun bu fekkee ne defuñ ko li nga xam ne mooy mën a raxas loolee ñu def te defuñ ko ni ñu ko war a defale mooy ñu tuub delluwaat ci suñ borom li nga xam ne moo dox suñ digganteeg doomu aadama yi nga xam ne ñoom lañ bokk nekk ci kaw suuf itam te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tënkal nu ko ci hadis bi xam ne ci lay wax ne kulul muslimi alal muslim xaraamun damuhu wa irduhu wa maalu mooy jullit bu nekk na xam ne am na loo xam ne dëgganul ci mbokkum jullitam mu def ko ci moom mooy bu mu jël bakkanam ci coobareem ci ci ak ci ci mu neex ko rek ndax loolu suñ boroom tëkku na ca doomu aadama ji nga xam ne moo koy def muy jekki-jekki rek jël bakkanu jàmbur te tegoo ko fenn amul wenn wenn wenn lenn loolu ko may ci lislaam lu dul yaa koy defal sa bopp rek loolu tëkk bu réy bi nga xam ne moom la ci borom def dafa mat a bàyyi xel wa man yaqtul muminan mutahammidan fa jasaahu jahannama xaalidan fiha wa qadiba allahu alayhi wa laanahu wa ahadda lahu adaban azima mu doon ay mbugal yu rëy yoo xam ne jox na tëkkoo na ko ki nga xam ne jël na bakkanub doomu aadama jël na bakkanub jullit te jëlewu ko ci yoon wi nga xam ne moom la ko war a jëlee muy ëllëg sawara lay dëkkee te dëkk ga du doon loo xam ne day am fu muy yem ñaareel ba it na xam ne ku suñ borom mere la ne na xam ne itam ku suñ borom di di di dencal mbugal mu rëy ëllëg la kon ñetti ñett yooyu rek yaakaar naa war naa tax doomu aadama wër te jékki-jékki di di jël bakkanub jàmbur te tegu ko fi nga xam ne fi la ko war a teg bi nga xam ne moo ci teguwaat itam mooy jël maanaam wax ko ci deram loo xam ne jaaduwut wala nga jël alalam boo ko waxee ci dara ci ci dara ci ci ci ab deram loo xam ne jaaduwul li nga xam ne moo lay tax a mën a mucc ca loolee nga def moo di ne nga xam ne faw dangay delluwaat ci moom ci bak deram boobee nga xam ne moom nga moom nga moom nga wax lu bon nga delluwaat ci moom jéem ko koo jégglu ba mu ba mën la ko ba mu baal la ko la bu fekkee ne nag alam nga jël da ko koy delloo bu fekkee ne mi ngi dund bu fekkee ne nekku di dund nga delloo ko ñi nga xam ne ñoo koy ñoo koy donn bu fekkee ne ñooña nekku fi nga saraxe ko te ko yool ba kon loolu mooy li nga xam ne mooy war a dox suñu digganteeg suñu borom ak li xam ne moo war a dox suñu digganteeg doomu aadama yi nga xam ne ñoom lañ bokkal nekk ci kaw suuf te faw comme ay doomu adama rek lañ te mata di faw léeg-léeg ñu def loo xam ne bokkut ak li ñu suñu borom sant léeg-léeg itam ñu def ci suñ mbokk jullit loo xam ne bokkut ak li nga xam ne moom la suñu borom bëgg ci ñun ñu def ko li nga xam ne moom moom nga def sa digganteeg sa borom te doonu te bokkut ci li nga xam ne moom la moom la bëgg ci yow nga def ko li la tax a mucc wala li tax delluwaat mela melaan ni nga ca jël delluwaat mën a rafetal loola moo di nga jéggaluwaat suñu borom suñu borom borom jéggale la li nga xam ne moo dox sa digganteeg doomu aadama yi nga xam ne ñoom nga bokkal nekk ci kaw suuf nag boo teg boo doxee ci boo defee ci ñoom loo xam ne jaaduwul li la ciy mën a benn danga koy defee ci seenub der wala nga def ko ci seenu bakkan boo ko defee seen bakkan suñ borom nga ko séqal ndax moom moo ko leeral boppam bu fekkee ne nag li nga xam ne def nga ko seenub der moom li yàgg doomu ji yéen ko séq te doomu aadama ji ku doya di la soxla aw yiw la kon li nga xam ne ni ngay mën a def ba loolee nga teg ci ba deram nga man koo raxas ba mu set moo di da ngay dellu ca moom jéggalu ko beneen bi ci teguwaat moo di bi nga xam ne mooy li nga lekk alalam boo lekkee alalam lii lay cay tax a mujj mooy danga nga ko koy delloowaat lu mu yàgg-yàgg bu la lebalee lu bor ba yàgg-yàgg bu jàkk bu jàpp ne yàgg dana tax mu mu dagan ci yow boo jëlee alalam bu jàpp ne itam lu jël ga lu yàgg-yàgg ci sa loxo dana tax mu dagan ci yow danga nga ko war a delloowaat bu ci moom boo ko fa fekkee muy dund bu dul nekkul muy dund nga delloo ko ñi nga xam ne ñoo ko ñoo koy donn bu dul loolu nga saraxel ko ko te yéene ko yool ba loolu mooy li nga xam ne mooy alal ji li nga xam ne mooy mooy moo mooy ab deram nag boo ca defee dara mooy da nga ko ko war a jéggalu bu fekkee ne jéggal na la ko loola mën a set bu la ko jég bu fekkee ne itam nekkatu fi moom moom rek moo la ko mën a jéggal du dee da ngay dem ci ña koy donn wala da ngay del danga nga koy da ngay yéene aw yoon ngir loola teg ku ci loola kon li ngay mën a def mooy jéem a waajal ëllëg ngir xam ne ëllëg loolee nga ko tooj ci deram suñ borom dana ko fay ci yow dana ko jëlaat ci yow ni mu koy jëlaati ci yow la yow nag moo di ne lu baax li nga xam ne moom nga defoon ci lay jël jox ko ki nga xam ne moom nga def yàqoonub deram wala nga wax ci lu ñaaw loola nag kenn xamul ndax bu ëllëgee da nga am lu baax loo xam ne da nga ca mën a fayaat kooku nga xam ne moom nga yàq ab deram ndax xamoo li ngay jëf lu suñ borom nangu la wala nanguwul la kon mu doon adduna kon mu doon jullit dafa war a nekk ku bàyyi xel adduna dafa war a doon koo xam ne itam da xam ne ne adduna sii mu nekk suñ borom da ko da ko fee da ko fee andi ngir am fu mu ko wéer foo xam ne wërta sàggane daraam wërta doya dal daraam wërta doon koo xam ne itam day jàpp ne comme ëllëg la jëm du du du bàyyi xel du bàyyi xel adduna si nga xam ne moom la nekk waaye boo nekk boo dee ab jullit da war a bàyyi xel adduna li ko fi war mu def ko tey bàyyi xel itam àllaaxira ji nga xam ne moom la jëm ëllëg loolu mooy ak jullit bàyyil xel adduna si yi nga nekk doo jékki-jékki xam ne àdduna rek daf ak kër la goo xam ne day romb nga daal di jàpp ne kon dara warul la fi da war a toog ñàkkal ko fayda bañ koo jox ak xam ji nga xam ne moo war moom waaye jullit adduna jii mu nekk da ko war a bàyyi xel ni ngir xam ne suñ borom moo ko wax wala ci ansaakum bil ardi wasta'marakum fiha moonu sos fi ñu ñëw ci adduna si waaye ba mu sosee ñu ñëw ci adduna itam dafa bëgg ñu dundal adduna bëggut rek ñëw ngir nekk fi mel ni ñoo xam ne adduna ñàkk ko ñàkkal ko fayda bañ koo jox li nga xam ne moo ci war waaye dañoo war a jox àdduna li nga xam ne moo ci war ba noppi itam di jox àllaaxira li nga xam ne moo ci war loolu mooy dund jullit noonu la nga xam mooy li nga xam ne moo la war a mel loolu nag kon mu doon lu mat a bàyyi xel ngir xam ne suñ borom am na bis boo xam ne dana ñëw mu yemale fa suñu liggéey yemale googee mu fay yemale suñu liggéey nag bu boobaa dara loo xam ne dana mën a dox suñu digganteeg fa mu koy fa ko bëgg mu yem fa amul du kàttan du daraja du ab tolluwaay du du ku ku mën a doon itam bu bis boobu egsee rek dana danga da nga da nga ko wujji ñu mu doon kon bis bu mat a bàyyi xel te bis boobay boo ko jéggee mooy bañ cay teg mooy bis bi nga xam ne nag ci la ñuy xool la nga doon def ci àdduna ndax jaaroon na ci ni mu war a jaar ak ni nga xam ak ndax jaarut fi nga xam ne moom la ma jaar suñ borom mi nga xam ne nag mooy borom kattan yàlla ñu dimbale ba bu ëllëgee bu muñ àggee fa nga xam ne fa lay xoolee suñu jëf mu xool na ci bëtub yërmandeem ak bëtub njëggalam ba lépp loo xam ne def nañ ko ci doye di suñ moom mu jéggal lu ko lépp loo xam ne def nañ ko ci ak doye di ci suñ digganteeg doomu aadama yi nga xam ne moom lañ bokkal ñu nekk ci kaw suuf itam mu gàddul na ko ndax mu gàddul na ko ndax mën na ko yàlla nañ ko defal yàlla nañ suñ borom jéggal yàlla nañ suñ borom taxawu rabbana axfir lana sunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al abrar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada